mais est-ce que yow yow mariage dafa nekk hantise pour yow. non euh, du tout parce que c'est juste c'est juste une coïncidence ces deux titres là. oui mais euh, en psychologie on parle pas de coïncidence. on parle mhm. plutôt d'une <laughs> tu vois d'une conscience qui se parle qui ne se parle pas. y a aucune conscience qui parle ou qui se parle euh, là-dedans. oui mais parce que yow yow si mariage yow lan nga lan nga xam si mariage par exemple. c'est un pur hasard c'est un man li ma xam ci mariage cosaan ndax yoomale. booy yi dañ la koy wayal buñ lay xarfal dañ la koy wayal dund yow mais bien sûr du lu ma dund mais mën naa ni dund naa ko ndax boo dëkk bokkee ci askanu ngaw la nga juddu ci ngaw la bu ñuy mayee nit nga toog di gis ñu koy solal bu ñuy xarfal xale nga gis li ñu koy def ñu koy wayal bu ñuy tudd liir ñu di ko uuf di ko wayal donc naturellement cosaan boobu naturellement cosaan mais ku ma gaaw dañ ko utal jëkkër nag <laughs> parce que lii mënul mënul wéy di dem manqué wu ko moom moo la ne mais lan nga si xam bijou non non non bijou calme toi di nga invité sa xarit bi euh, dana nga day sa xarit bi invité sama yaay nga invité di leen wax jaajëf jaajëf <laughs> invité bu ngeen fi amati lu jàpp lu ma neex laay wax kuy jigéen soxla nga jëkkër loolu yàlla moo ñu tuddee doomu aadama bon euh, imam néew fi mais su fi néewoon tey dañ def benn xutba boo xam ne imam am na ku suñuy xëcc ci yoo xam ne ku ma gaaw lañ ko utal mais jëkkër je ne veux pas parler de ça Tounkara de cette manière banale que tu le fais mm. parce que moi je me respecte et je respecte ma personne et je trouve que tooguma xëy suba ba ngoon rek ni damay wut jëkkër mm-hmm. jëkkër dafa nekk loo xam ne quand j'ai envie je l'aurai. ah oui ah oui. comme ça nga nu mu ko claqué. comme ça ah comme ça parce que je ah claque des doigts. il mais absolument. mais vas-y c'est la <laughs> eh, a tuur la dem fii di jéem nappaate. mais j'ai pas envie vraiment. non Coumba Gawlo bu ma envie fii demee wu ñu say envie de sa bu la neexee nga am sa envie <laughs> mais ñun tamit am nañ suñu sañ-sañ ne Coumba Gawlo dañ bon euh, <laughs> bàyyi naa la nga wutal ma benn professeur rek comme yow am ay ay am nga ay cordes ay kii. Euh, non imam ñoo fi tey bu fi newoon am na ñu fi mais mais mais Coumba quand même c'est c'est parce que le mariage c'est une tradition tradition bi ngay wax. ñun war ñu ko perdre. Ah, ñu suñu ay jigéen ñu toog ba heure bi duñu sëy. donc euh, yow yaa ngi doon wax sànq dañuy perdre suñu ay tradition mais benn ngi nii bu ñu perdre. non vous vous trompez. et vous vous trompez parfaitement. Et je vais vous dire pourquoi. J'avais décidé de ne pas parler de mariage, mais vous m'amenez à parler de mariage. Parce que je vais en parler, parce que je ne fuis pas le débat. Mm. Vous vous trompez pertinemment et vous le savez ah, mieux que moi, Tunkara. wax ma tey ñaata jigéen ñooy sëy ñu maye leen trois mois boo leen gisee bu buñ jéggee sam ndox doo ko naan neel benn wax ma ñaata ah jigéen ñooy nekk ci sëy di jur di teg di jur di teg di jur di teg ñu teg leen fa ñëw takkaat keneen teg seen kaw ñuy jur di teg mm-hmm. bu ñu bëggee dem mënatuñu dem ñu ni leen boo demee bàyyi fi samay doom wala ñu xëy du jour au lendemain mm-hmm. répudier la mm-hmm. tu n'amènes rien tu ne pars avec rien moi je suis ambassadrice des institutions onusiennes je fais des débats partout dans le monde dans le cadre des respects scrupuleux des droits humains et de la femme et je sais que les femmes souffrent. il y en a qui sont heureuses laisse-moi laisse-moi. <laughs> Ah, il y en a mais heureusement d'ailleurs. waaw ah, mais jëlal exemple du heureuse bi Tunkara ah, heureusement. pourquoi nga jël exemple du malheureuse non non heureusement qu'il y en a qui sont heureuses. donc laisse-moi te dire et ce n'est pas parce qu'une femme est malheureuse ni parce qu'une femme est heureuse qu'elle ne se marie pas. je suis désolée vous savez vous les Sénégalais vous avez un défaut. vous avez vraiment un défaut. vous avez un sale défaut. coincé. et le défaut que vous avez c'est de juger les femmes. Mhm. arrêtez de juger les femmes. vous n'avez pas à les juger. Tout à Personne n'a droit de juger personne. Mais, elle nous juge, Léo, tu juges les hommes. les de là, juger. Mais là, tu nous juges. Parce que tu nous juges. Hein? de juger. Nous avons un sale défaut. Mais, mais tu te rends compte. Mais non, non non euh, moi laisse-moi te dire Tounkara. Hmm. vous savez je trouve très dommage que vous jugez ainsi les femmes. mais kenn deful benn jugement benn jugement bi non parce que veut dire que le mariage c'est ça une quand tu dis ceci et que tu dis oui nee nga valeur yi lii ak lii ak lii la kon ku sëyul amoo valeur mais c'est faux c'est ce que tu as dit non je te reprends textuellement non c'est ce que tu as dit et ça c'est faux non waxuma ah da nga juum da nga juum ah da nga juum d'accord bon j'ai jamais dit ça bon il le retire ça y est on répète li ma wax dama ni la dama ni non je n'ai jamais dit ça <laughs> si tu as dit ça non non tu as dit ça dama ni non bàyyi ma wax li ma wax je répète dama ni sëy sunu valeur la. te yow yaa ngi wax léegi nekk dañuy perte sunuy valeur. benn ngi nii boo xam ne. yow yaa ngi koy galvaudé. parce que uh-huh. sunu valeur la loolu laa. voilà moo tax nag ma la kon. li nga wax textuellement mooy li ma la wax. kon galvaudé bi mooy parce que nit ki sëyul rek kon hmm. galvaudé na valeur yi. da ngaa jum. mais professeur le mariage n'est fin en soi. non j'ai jamais da jum parce que yéen sénégalais da ngeen mën a juger jigéen. fay leen juger jigéen mais jugement nit du juger jigéen. parce que boo gisee nit sëyul. nga jugé ko ni ko yow lu tax sëyoo. waaw hmm. question la loolu du jugement c'est une question. c'est une question alors si la question m'est posée moi j'ai pas envie de parler de cette question. mais si la question concerne mmh. les femmes. Ouais. je peux en parler. Mm-hmm. et intervenir au nom de toutes les femmes mais yow yaa amul jëkkër moo tax ñu koy wax. Kumba non mais je ne vous permets pas d'en parler parce que ça vous regarde pas. ah. kaay ma wax la dara nag. <laughs> yow jàngoo sociologie de. ah absolument. le mariage. Ouais. le décès. Ouais. le baptême. Mmh. le divorce, oui. c'est ce qu'on appelle des faits sociaux. Ils n'appartiennent pas à l'individu stricto sensu. Absolument. appartient à la société. Absolument. Donc soo ma nee kii non boobu ah. moom da nga jum. bon sociologiquement ça ne se pas. mais moi personnellement je suis pas venue pour en parler et je vous permettrai pas d'entrer dans fois, ma vie encore, privée encore et je veux pas fois, en <laughs> la ko may. mais tey ñëwuñu fii. voilà qu'on parle de mon album. non loolu yëpp si la bokk c'est un tout. mais en musique qu'est-ce qu'on fait ñaata instrument la ñuy dajale tey pour mën a composé dara mm. c'est un tout yow tey Coumba gaaw la tu un tout yow da nekk icône certes da nga nekk ku am jaar-jaar mm. danga nekk ku indi terroir mais da nekk aussi ku amul jëkkër loolu yëpp si la bokk. et pour lu tax ñuy wax bii bii bii bon mais boobu tam bu ñu ko wax bu ñu apporter jugement prof. parce que qui a jugé kii ici. parce que xam nga lu tax professeur. statut am naa jëkkër wala aw ma jëkkër. ça vous regarde pas. et moi ça me regarde. mais si et moi ça me regarde et ça vous regarde pas. pour ñu bañ ci wax. non mais xam nga loolu tooñ la loolu loolu tooñ la mais kenn jugé wul kenn fii. oui mais ça vous regarde pas. mais professeur dafa poser question. lu eh, tax lu tax la wax mais man dama poser question. parce que c'est ma vie privée ça vous regarde regarde pas c'est pour ça ma loolu tamit am nga si sañ-sañ ne ko bon man du ma tontu mais j'ai pas envie de débattre là tamit mm-hmm. bon euh, léegi beneen bi mooy man dafa am loo xam ni vraiment euh, lu ma rafetlu mooy yow par exemple doo xeesal ça c'est franchement c'est très bien donc si wéy jàpp bul bul bul diw ay xawma yan yooyu. <laughs> produit yooyu nga xam dafay xeesalaat. et quel est le message que tu as par rapport au xeesal mais encore une fois man jugé wu ma kenn. Mhm. parce que xam nga dans la vie Tounkara il faut savoir concéder à chaque personne son choix. même su fekkee choix bi baaxul il est mortel. Mhm. tu peux lui donner des conseils. loolu la ñu lay tu peux lui donner des suggestions. loolu la laissez-moi terminer bàyyi ma ma yeggale. mën nga ko wax li nga xalaat mais bu ko critiquer parce que mmh. choix am la et moi mon choix mon choix personnellement est que je suis fière de ma peau noire mmh. mon choix est que je suis très fière de ce que je suis pour rien au monde du ma changer sama peau au contraire moo ko mënoon gën a ñuula ñuulalaat sax mmh. dama koy ñuula laat ndax mooy sama identité ndax plusieurs raisons d'abord mooy sama identité ensuite xam naa ni tôt ou tard fa mu may jëmale du baax ndax mën na ma jox maladie de mën na ma jox ay yeneen ak yeneen ak yeneen et puis mun naa nax ñëpp mais mënu ma nax yàlla bi ma sàkk. parce que moom bi may sàkk dama ñuuloon. kon mënu ma judd bëgg a xolli sama po pour mel.